voilà mbokk yi li fi xewoon gis ngeen ko Ada Fass a pris le meilleur sur Tapha Mbeur Ada moo daan fi ñuy tëjee rek ak sama papa notre conseiller ñoom moom gindi nañ ci lu bëri tey papa li ngay tëjee rek tey ni nga jàngatee. combat bi ni mu demee. Euh, ñaari xale yi dama leen di félicité hmm. euh, dama leen invité ku ne ci suma rajo hmm. euh, ci ITV hmm. combat bi fa la taxawee fa leen Fallou Ndiaye contacté ba taxawal combat bi muy suma ñaari doom ku ci ne ma cofeel ci yow ndax yëg gi nga am ci man. Euh, moo tax tey dafa diisoon ci man euh, mu mu taxawee nag suma émission ñoom ñaar moo tax booy xool combat promotion combat bi dama ci dama ci def lu bari te booy xool tey lay doog a ñëw ci arène bi aussi ndax gauche yi il fallait que ma reporter seen combat reportage seen combat moo ma indi loo tax ma ñëw mais remplir nañ seen contrat waaye nag Ada Fass li mu indi tey ci gàllaaj li mu indi tey physiquement dafa mbër attunu ko loolu rek la. waaye daan na naan daan. da nga gis mbër. daan mbër daan na mbër. Hmm. Euh, xam nga mbër ñaari mbër bu ñu dajee. coow li du am am werante. moo tax coow li amul werante. moo tax Ada Fass bi mu duggee jël ko. épercute ba nag moo jeexal Tapha Mbeur. épercute hmm. ba moo ko wàññi mu daw takk ko nag yëg ko. daan ko jël bu rëy l' la def bi mu déclenché bàyyiwul ba ni mu amee victoire euh, kon maa ngi koy félicité di encouragé Tapha Mbeur ñaari xale yoo xam ñu ngi ci yoon Tapha Mbeur euh, euh, combat bi moo koy def mbër. moo koy def mbër waaye Ada Fass ah attention Ada mbër la. am na avenir ci làmb am na avenir ci làmb na ko entourage gën a jàppale ay fansam gën ko jàppale. gën ko jàppale nag ci lu bari aussi. surtout ay fan sama. waaw nañ ko jàppale nañ ko jàppale ci bañ a bañ a déborder fa laay yem. nañ ko jàppale ci bañ a déborder te nañ ko jàppale jàppale goo xam ne xam ne xale bi mi ngi ci yoonu làmbam te it vraiment li topp ci ginnaawam xam nga xale yi ku may fàttali. Bacheras li na ci ginnaawam sax xamu leen xamu leen mais Pape tey seetaan nañ làmb tey làmb yëpp làmb yëpp ok. làmb yëpp ok tey moom waaye ki ma gën a jaaxal tey. mooy Mor Kanka. Mor Kanka <laughs> Moussa Ba. beneen phénomène la ah. non Pape wax la. sulli wax. Hmm, mbër yi koy def bariwul.